Dakar mën nañ livrer partout au Sénégal Ou au gaaw léegi 77 127 68 80 au but du cosmétique lu Joy dëgër dëgër tanda xam nga luma gëna neex ci koor man han koor xam nga lu muy def ci man man da ko ñame nak koor dum ko bëgg ah, da ko ñame nga juróom ben euh, fukki wër ak ben dañ ko waron wor di lekk ci ben wër dama am leneen lu may sentir sama yaram waaw ah, yow da nga ñame koor na ah, kan moo ma jur ah waaw loolu am na sa nijaay da la yettu da koor man maa ko bëgg sama biir xol yàlla xam na loolu da ngay or fo tollu nak koor dafa neex trop trop leneen ngay yëg leneen leneen ngay yëg moos

ma sàcc wax la. lu xew. sama nijaay. waaw nga lu ko daa jàpp. déedéet mami Cobra. Euh, chéri pourtant yow laay de. Euh, Cobra tey damaa bëggoon ñu waxtaan diggante jëkkër ak soxnaam. Cobra fan yëpp seetlu naa la boo tëddee man ci lal bi danga may wan ginnaaw su may wax ak yow doo ma faale kinoo néeg bi benn yoon sa benn yére bii démb ba léegi moom ngay sol ah neexuma de neexuma de Cobra yow sama xarit nga bañ nañ ko ba ni ñaareelu xaritu jëkkëram yow sama xarit nga man bañaluma la dara bu ma jëlee sama loxo bii teg ko ci sa lex bii parce que dama mer rek waaye bu ma mer woon loolu duma ko def def naa ko ba pare sax di ko rëccu yow sama xarit nga billaahi wallahi tallahi suma amon lu toll ni àddina ak li ci bir dama koy jël teg ci say loxo ndax amul lu la man bo ma damay jaxaso billahi soo ma dotuma nek nekk ni sama ni daal doon bi ngay lacc dépense ah. dafa joya joya joy bay xexet man dama melni lire bu buma togon fi rek di nax joy jooy bay bëgg a ni nga ñëw nak nga ñëw rek mu arrêté yooyu laaj nga ja laaj ko dépasse mu jox la nga dem nga dem na mu bëgg ma ray ak joy ma ko fi joy yow ki sa jabar la am nga droit dur ko ah ñay deh, boko doré war nga ko dur boko dur war nga ko dur lool daal na nek fi di joy mom mi nga dur kay mo wara joy sa mer xajul ci man ma wax la ko amuma jam duma lek ba sour duma nan ba mandi Misa si su fii na nag walla da nga yow laay waxal Cobra man dong ak deret la sama xol bii boo ko ubbee yaay ne ci kaw affiché wu man awma lu la kat kon lii ngay def fan man gisuma loolu su ma da ngay mel na nga dëgg la dama juum ndax man maa la dóor te jigéen kenn du ko dóor waaye gannaaw la damaa juum damay tub du ma tuub sax yam ca dama lay jox ndàmpaay şey onun giysi amir parmağı. Raja peneraman Amerika, Palmer Ramon. Masalah, mana mana merek? Ya lah, mau orang maju tur, orang maju tur kan, tapi orang lah. Maju ke sama kerja, juga sama kerbanyo, video lemunya. nga doon deuxième âge sama xarit yëpp dama xas paa bi nga dugg paa bi nga dugg ma bëgg la te yaa nga tax cuuraay bu neex man la gooy bu neex man la dara bu weex man la togg bu neex man la guddi gi lal bu neex man la nga jàpp ma di ma dugal man moom it laa xamuma dara waaye baal naa ne af ci laa namoon ci yow lii laa ci yow billaahi nekk ci koor waaye bu nekkuloon ci koor dama lay accolade ñu la man tam maa ngi bëgg a accolade la na la bébé merci waaw suñ ko ni koor gee tax waaye bu ndogoo ba pare di nga xam lépp dëgg la maa ngi soog a dund bul ma di meree ndax boo ma meree damay wéet dimbali ma ko laa dimbali ma dimbali ma loolu waaye mbéj bi du amat saf na de waaye yow xam nga ni dootuma la mbéjati yow itam lu ma di la mbéjati sama noppa bi ba tey réeréer suñu toon yëpp ordonnance laa ko nar a moo tax fan yëpp duma ma yem day jékki-jékki rek di su di riir rek naan xur xur xur xur ñun yëpp moom lay def. maa ngi jégalu bal ma baal nga. baal naa la soxna Seydou. waaw te nga te nga génn nag doxantu ci ci cour bi ndax na naa lool sa jaagar jaagar rek ah namm naa. maa ngi yem rek. Yeah. Wai man wai, wai, wai, wai, wai, wai, wai. <laughs> nag ah yàlla ya baax na ñaar fukki junni sama loxo bu ma paree ya, dem dul lu rëy ne ko dama ko jëndee ordonnance dem ci pharmacie Kayor de bindal ma ordonnance boo man xal tamit boole samay wax. loolu daal mooy problème am mais amul benn problème dóor yi bu dóor ma Cobra daal ko métti. yow wax nga ndax kay bi sa guddi kañ ma ngui dem muy ku di ci patu ëlbati ci patu bay saga ci patu wala saaga wala maa yee ni ko nijaay ndax do fi yoy bu ci mer sa ha ko ah la jotel ah yamu na ah. jibi sam man ngay jew yow ya bot jibi war nga jew rawati na nak nga nek ci wéru koor yow kon sama joy yep yow wéré nga ko adina yow xam nga ni doo ma fajal gàcce yow waroon ngaa xam li tax may jooy ci kër gi nga nga nga régler loola waaye defuloo ko dangaa toog di ma toogee te nii nga ma toogee fii noonu nga may toogee feneen yaa ñàkk jom ji bisaam li tax nag nga di ko def nag xam naa ko zone de confort bii nga toog te amoo dara loo def moo tax nga nga am jotu jëw util loo def ji bisaam li ngay def yàlla gërëmu ko yow yaa ngi woor ba bii di ko yàq di ma jow sama nijaay da doon jooy et après loolu yow yaa ñàkk jom waaye nag demal rek demal rek demal rek su ma la joxee nga lekk ba régg daal toog di ma jëw waaye nag baax ah, yow kay amatoo koor jaratul nga di ko dàq koor kay moom jaratul nga di ko looy dàqi koor da nga amati koor ndax yow yaa ngi toog di ma jiw naan damay dàq koor dàqu benn koor da ngay feni xoolal na ko topp nag gis nga bis boo ko toppee sa koor gi lay yóbbu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 amna aloir 1 ak aloir 2 Nek marché central Thiès avenue Amadou Niagne Sow fay téléphone portable toute marque en gros et en détail ak bépp accessoire téléphone 78 592 63 63 ak le 77 533 02 02 am aussi aloir marché Moussanté en face maquette bi ñoo ngi jaay lépp luy électroménager téléphone 77 070 45 00 Tivaouane am à aloir portable mu marche marché en face terrain basket téléphone 77 656 44 87 Alloir portable Sasune, sonné des day kokan la ñu ne Serigne Diaby kokan la ñu ne borom sijaada bi grand marabout de la Casamance doté d'une dimension spirituelle très élevée même maa la ko wax dafay di un voyant hors pair Safara ay jafé jafé moma ci doy ay buntu yu tëju mo ci gaaw dafay faj ku rab jàpp mbaa ku sonal katan faiblesse sexuelle ou impuissance yeen ñi am jafé jafé ci sen biiri sey sëy ngeen dàqalikoo nga bëgg retrouver sa ex mo xam muy mba ci geen yeen ñi jongante ngay passer concours